nga xamante ne moom moom it baaxal moom moom xam naa ne Sénégal àdduna ku xam nañu ko mu ne xam mu ne léegi dafa daa mën a xam mu ne xam na sa téléphone mais mi ngi nii am ñu xam na sa téléphone mais baaxal na Birame Sambal Sall. baax.

moom Babacar moom Babacar ñoo bokk. Babacar ban. Ndao la dëkk Ndao la dëkk. ah. Amath Ndao mais déglu ko foofu yàlla na yàlla Amath moom. moom nit ñi nit ñi yàlla. nit moom su def lu baax yàlla ñu jàng ko la lay boole. yàlla xaw xaw moom sax moom yow la doon wax sax barki démb presque ñu ngi toog di dugg ci yeneen gaam di wax ne Babacar bët yi am. voilà donc góorgóorlu rek lu baax moom ku koy def yàlla yàlla yàlla rek la koy fay quoi. nga jël numéro bi sax. waaw jërëjëf jërëjëf 77. 556. léwo application la 76 mooy sama numéro mooy mooy sama numéro faay menace mu ngi ci jàpp mu ngi ci jàpp bu baax Lamine Elimane def la nga wax ngeen xam jaajëf jaajëf waaw Souleymane a ngi nii Souleymane fu mu bëgg a taxaw. waaw mu ngi jur mu ngi jur jur xam nga jur allo waaw dañoo ànd daa of doo xam nga ànd daa also eyere also eyere mais also eyere also eyere sonn quoi sonardi wuu jël naa bii booy mais bii da nga koy effacé parce que am lu tax da nga doon mboq di bulet da nga doon génne ay bulet bilaay xam nga jaamu yàlla daa baax te àdduna soo ci nekkee lépp loo def su ma nag ngay jigéen lépp loo def ci jaamu yàlla te loolu su ko defee day moom papaam dafa baax waxtu julli du ko te baax la nga jigéen ah te su fekkee man may sa sa sa papa ci groupe nga wax ko fu ne te ma war la may su fekkee déggal nga su ma waxtaan ak moom ba jox ma groupe baax nag su ma ñëwee ñaan la di nga day gën a baax rek ndax day gën a kii rek. sër laa bëgg a nekk. ci moom sër. li nga wax ma soxla sër. mbir maa ngi xam ko doo xeetal. bilaay daa baax. ma tey daal lay xam naa ne àdduna li ci gën a am solo tawaf da ngay wax lu dëgg ci yow. te dëgg bi nekk ci yow. parce que soo dëgguwul. waaw ëllëg si biir mën na indi loo xam ne da ngay dem ba regretté. ah. te nag mën nga dugg mu baax. sëñ maa dugal waaw xam nga doom tey maa ngi Italie su ma décroché rek crédit bi de. waaw waaw su ma waxee crédit bi de. jël maa ngi dégg jël maa ngi waaw bàyyi ko xam ne maa ko moom moom nan la ñu naan bàyyi ko bàyyi ko xam ne yàlla ci na beer bi waaw bàyyi ko mu ko ay na ko dugal mu dugal ka belu te waay tagi ki ki sa ba wax ne te tu yàlla ci eh, na beer jaay jaay waaye looloo bëri waaye nga ne lu tax a ji wax lu mu ñu ne ko laaj ko lu muy jooy mu ne am naa ñëpp ko ko yaay ñëpp ñu mu yaay mu ne ma yeggee Sénégal woo la dégg nga jëlal boobu may xam ñu ci jàmm incha allahu rabbi kontaan naa trop daal non maman la ñëw moom maman la ñëw

damaa bëgg damaa bëgg ni ma jàppee nga jàppeel ma ko jàppeel ma ko waaw lu xam nga yow doo ma lu moom it ma bëgg ma mukk nga tànkam lu ko li may defal mu ne non non non laay noo may defal ah. moom it heure bu ko heure bu nekk ci ay yitte parce que Dakar xam nga ne dafa dafa doy waar. waaw bien moom daawul daan def moom. li daan wax moom la ko daan def. waaw. at naa ngi ni bu dee tuuti bàyyi naa la yàlla ma dama ko ragal. waaw dana war kooku wax mu ne moom yàlla du ko def la bu seet. yàlla du ko def parce que moom lu muy wax moom lu ñu ko defee moom je fais la la chose ñu def ma ko ma euh, may ko baaw. waaw. en fait dem def na affaire bi ak ma jóg sax dana jàng nekkoon léegi. en même ne la wut. non Torino moo ko tas parce que démb démb naa ne que Torino Torino démb moom waaw c'est que c'est que daa bëri waaw non man moom maa ngi nekk na jël bagage bi rek di def. jël bagage yi ah. léegi man mun naa fay ak bagage yi ngeen ànd ak laay ku nekk loo xam ne.